Euh, man la maam Cheikh Thiam le coordinateur de l' association ànd defar Kouré Gàtteeñ regroupe huit villages euh, yu nekk fii yenn yi nekk ci dans la commune de na Dakhar yi ci des nekk ci dans la commune de coule donc suñu regroupement bi nga xamante ni ci la ñu regroupé au niveau de l' association ñu tey ñu prévoir un randonnée pédestre boo xamante dañ ci woo toute la population de Kouré Gàtteeñ ñu génn ànd ñu dox premièrement pour ñu sensibiliser la population ci association bi nga xamante ni mi ngi doog a judd ca dara yitteelu ko lu dul faj soxlos Koura Gàtteeñ bi ci jiitu tey ji ñu war ci taxaw mooy état bi nga xamante ni tali bi nga xamante ni moo jóge ngaay jëm ci Maxa travaux yi démarré pratiquement ñu ngi ci deux ans et quelques yoo xamante ni demul dikkul am ay impact yoo xamante ni population bi ñu ngi koy souffrir bu baax a baax a baax plan sanitaire sur le plan intellectuel sur le plan moral ainsi de ak li nga xamante ni mooy réseau téléphonique bi nga xamante ni fii ñu dëkk ci Kouré Gàtteeñ pour nga woote fi mu jàll yombul internet bi waxi nopp da ngay bëgg a téléphoner di nga yéeg ci kaw kër yi wala nga taxaw ci yenn endroit yi pour mën a jël sa appel wala sa euh, réseau téléphonique ak internet bi te fii am na lycée am na du moins am na CM bu fi nekk boo xamante fii jamono tollu ko ku ni CM ak jàng xam ne internet amal na leen njariñ ñoom ñi ngi def ren troisième soxla internet def nañ ci démarche nag dem nañ ARTP déposé fa mais ba léegi amaguñu suite waa Sonatel Orange réagi ñu gu ba léegi donc daal ñi ngi ci lancé appel autorité yi bi yàlla dogalee na ñu am fi honorable député Assane Diop suñu yóbbante jàpp na ne dina tàbbi ci nopp bi mu war a tàbbi muy ci wàllu tali bi ak ci wàllu réseau bi bu dee ci tali bi ñu ngi koy wax mu jottali nu suñu doléance yi le ministre El Hadji Malick Ndiaye le ministre du transport mu jottali nu suñu njàmbat bii nga xamante ne mooy wàllu réseau bi le ministre des télécommunications donc loolu mooy li nga xamante ne mooy solos bis bi mais nag Koura yamul yemul foofu Koura Gateñ taxaw na pour marché bi nga xamante ni ñi ngi koy doxal fii ñu fexe ba marché bi nekk marché boo xam ne marché bu mucc ayib la jigéen ñi fi nekk dafi daan seen doole ñu mettre leen dans de très bonnes conditions en plus ñi ngi soxla aussi santé Kouré Gateñ regroupé huit villages ak population bi mu toll nii képp koo xamante ni lu la dal ci santé da ngay dem Ngaay wala nga dem Mérina wala nga dem faneen donc honorable député ñi ngi lay xamal ni Kouré Gateñ bëgg nañu poste de santé digne de son digne de son nom parce que Médina on a cinq 5 de Médina on est à 3 kilomètres de Ngaye donc loolu vraiment ak fii jamono toll loolu ñu ngi leen koy ñaan nga waxal na ko le ministre de la santé mu jàppale ni ci doléance yooyu loolu en gros bu ñu ko ramassé mooy les doléances majeures yi nga xamante ni moom la Kouré Gàttin di souffrir ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar tali bi ngi koy indi ci bi mi ngi fi indi lu bëree bëri nit ñi à chaque fois ñu ngi dugg ci sareet yi di daanu oto ngi def ay accident nit ñi ñu ngi feebar les asthmatiques nit ñi ñi ngi am problème mu noyyu ñi ngi am problème yëpp toujours vraiment ci dafa yàgg trois ans presque tali bi mi ngi koy dox nit ñi sonn na tey suñu frère Moustapha Bassirou dégg nga li ma wax léegi que démb am na benn frère am boo xamante ni otoom def ci masse ba oto bi yàqu loolu yëpp ci dégâts matériels yu tali bi la kon ñu ngi ci lancé un appel autorité ñu jàppale ñu ci tali bi ñu jàppale ñu ci tali bi ba tali bi mën a egg dans les plus plus plus brefs délais lu mu gën a gaaw ñun xeeb nañ parce que sonn nañ loolu daal mooy li nga xamante ni moom la tëng ci doléance yi ñu xamal ko ñun ñëpp fii loolu mooy suñu problème. tali bi boo koy xayma ñaata kilomètres la. Mekke Cilmaxa. 45 kilomètres 45 kilomètres. 45 kilomètres donc 45 yoo xamante ni pratiquement mi ngi bëgg dem 3 ans loolu wax dëgg yàlla jàpp naa ni boo ko doon liggéey 1000 kilomètres sax war na mën a pare. war na mën a pare kon donc autorités yi nañ ci gën a taxaw xam ne population bi son nañu sonn nañu trop. son nañu trop. Donc euh, d'abord la présentation, ensuite vous revenez sur l'association et son objectif, et ensuite quel est l'objectif de la randonnée pédestre que vous avez organisée aujourd'hui euh, Merci Tiandoum et à toute la presse ici présente. Nous remercions les autorités, à savoir l'honorable député Hassan Diop qui est juste derrière moi et à l'ensemble de la population de Kourégaté. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici dans le cadre d'une randonnée pédestre. organisé pour la promotion, mais surtout euh, qui va dans le sens de l'unité, mais de la solidarité entre toutes les huit villages qui regroupent Kourégateigne. Et cette randonnée aussi a des vertus sur le plan sportif, donc euh, la randonnée seule suffisait. Mais la, mais la localité a aussi des, des, des, des, des des choses qu'ils doivent exposer parce vous, vous savez bien que ici où nous sommes présentement, cette route qui, cette route de Mekhe à Kilmaha, les travaux ont démarré il y de cela presque trois ans. Jusqu'à présent, sa peine à terminer. Et ça cause énormément de dommages, tant sur le plan environnemental que sur le plan sanitaire. Euh, tant sur le plan environnemental que sur le plan sanitaire, mais aussi nous avons enregistré, il y a pas mal d'une dizaine d'accidents mortels ici depuis le début du chantier. Donc nous exhortons les autorités à ce qu'ils prennent les mesures idoines pour que cette route soit achevée dans les plus brefs délais. Parce que ça gangrène aussi l'économie de tout le Cayor et le Cayor des profondeurs. Parce qu'actuellement, nous avons noté que même la fréquence de la circulation est moindre. Et cela entrave l'activité économique de cette localité. Ça, c'est une doléance que nous demandons au ministres El Hadj Ndiaye et nous comptons sur lui pour que cette route qui fait moins de cinquante kilomètres soit achevée dans les plus brefs délais. À aussi s'ajoute la qualité de la connexion Internet mobile, fixe mais téléphonique aussi, parce que c'est très difficile à Kourégateng d'émettre un appel, un, un simple coup de fil ici. Si vous allez un peu plus loin même émettre un appel devient une difficulté. Et cela, dans ce monde du 21e siècle, je pense c'est inadmissible. Actuellement, où le monde est interconnecté, les activités professionnelles sont de plus en plus faites en ligne. Donc, manqué de connexion, c'est presque manquer une denrée vitale. Parce qu'on nous, on nous, on nous prive de l'information, ce qui est capital actuellement. Donc, nous appelons l'ensemble des opérateurs de télécommunications mais aussi les autorités de régulation de la Sonatel et de la RTP, à ce qu'ils prennent les mesures nécessaires pour que Kouré Gatteigne ait un réseau de bonne qualité, mais à, à un coût moindre. Ce combat aussi, nous comptons le mener avec le F4C, comme l'a dit tout à l'heure le coordonnateur, parce que c'est un combat de tout le Sénégal. Nous avons noté que au Sénégal, nous présentons les, plus, les tarifs les plus chers au niveau mondial en matière de connexion alors que nous sommes parmi les vingt cinq pays les plus pauvres du monde ce qui est inadmissible donc nous exhortons tous les opérateurs de télécommunications sans exception qu'ils viennent faire l'état des lieux et qu'ils prennent les mesures nécessaires pour que cette situation soit complètement résolue ah, ah. oui poste de santé actuellement vous savez que cette localité, on parle de plus de 15 000 habitants. 15 000 habitants sans poste de santé, même une plaie, il faut se déplacer jusqu'à Meret. Ça, je pense que ce pas normal. Et puis, nous avons un poste de santé qui est là depuis 10 ans fermé. Nous demandons la réouverture. Mais aussi la réhabilitation et l'extension. Parce que nous ne voulons plus d'une case de santé. Nous voulons d'une poste de santé digne de son nom, où les femmes peuvent s'y aller, les hommes et les Khadim Mbow secrétaire général de l'association ànd defar Kouré Gàtteeñ merci beaucoup ak ah, ah, ginnaaw présentation bi tey déglu nga njàmbatu askan bi boolu njàmbat bi en tant que député du peuple ban taxawaay nga ci fas yéene waaw man la honorable député Assane Diop euh, di aussi coordinateur départemental de PASTEF donc ñëwoon fii tey rek Euh, pour ànd ak sama mbokk yi nga xamante ni ñoo dëkk Kajoor des profondeurs euh, lii nga xamante ni mooy seen jàmbat euh, balaa may avancer tuuti nag damay nuyu la coordonnateur Mame Cheikh di rafetlu aussi taxawaayam bu baax a baax a baax di rafetlu aussi taxawaayu le secrétaire général Khadim ak mboolem membre yi nga xamante ni ñoo bokk ci association bi yëpp ndax bu ngeen seetloo nee nañu ça groupe huit village mm. kon du mbir mu ndaw kon ñoom bu nu loo boole seen ay doole ngir am ay objectifs yoo xam ne yu leer naññ la jëm ci jafe-jafe askan wi loolu c'est à saluer tey nag dañuy ñëw en tant que parlementaire en tant que député du peuple pour bokk gi yéen lii nga xamante ni moo am parce que loolu dafa bokk suñu rôle ñun ñuy ñëw xam jafe-jafe askan wi mën koo jàllale euh, à l'Assemblée nationale euh, suñu frère le ministre El Malick Ndiaye lii ñu fi dund tey dinañ ko jàllale ci moom euh, balaa bët set wala balaa ngoon incha allahu rabbi euh, donc di wax ni mbir la moo xamante ni daal yaakaar naa ni ku ne gis na ko ndax tali ngaay cilmaxa wax nañ ci ba sonn bu doon wax am na ko ko wax bu doon wax mooy tax mu defaru kon dañ defar nañ ko bu yàgg mais nag lii daf ciy bokk daf ciy bokk ci xeex bi parce que dootul nekk wax mais ay acte lay doon maanaam ay taxawaay lay doon te taxawaay yii day taxawaay yoo xamante ni moom la citoyen bi war a def bu ñu ko xawee fàtte ci ay sañ-sañam donc di wax ni euh, mbir mii ñu ngi ko xooli woon avant deux mille 2019 ci sama xam-xam donc bi ñu ko xoolee man yaakaar naa ne la fa nekkoon sax ni mu ñuulee woon sax moo tane woon lii nga xam ne moo fi nekk. ndax lii fi nekk nii moom dina jur ay jàngoro pour askan wi ndax poussière bi ku ne xam na ko. dina jur aussi insécurité ndax dégg ngeen oto bi fi lakk euh, démb xaw ma bërki démb. gis ngeen aussi accident yi nga xamante ni moom lay causé. gis ngeen problème environnement bi nga xamante ni moo fi am garab yi. presque mën naa la ni dundatuñu ndax poussière bi nga xam ni moo fi ji. donc loolu comme day rey ay garab. waxuma la nag nit ñi nga xamante ni ñoo fiy dund te poussière mën a dugg seeni dënn man leena indil ay tawat. donc loolu euh, dafay mat état yëg ko ba mën cee am taxawaay bu mat sëkk boo xamante ne nii dans les meilleurs dele dinañ mën a ñëw fii mën a continuer liggéey bi. parce que ñun bi ñu gisee ñu di ko xool li avant deux mille dix neuf dañoo jàppoon ne élection deux mille dix neuf yi moo taxoon Macky Sall xooli ko pour defar ko ndax ñu voteel ko mais boobu ba nëgëni nag defuñu ci benn jéego. ndax gisoon naa sax booru bayti bële ñu daan jël ay ay saakuy ciment di ko di ko fatte pax yi nga xamante ni ñoo ne woon ci tali bu ñuul bi ñuy dem màggal man fee jaar sans problème ndax loolu man dund naa ko ak ñoom kon loolu bu buñ demee ba ñu xolli ko nag cela veut dire que dafa meloon dañoo yàkkamtee defar tali bi mais loo xamante ni dem na trois ans quatre ans ba nëgë ni si tali mel nii mu mel man yaakaar naa ni euh, war nañ ko ñaawlu ba fu ñaawlu yem. beneen bi mooy problème mu réseau bi problème mu réseau bi parce que ku ne xam na ni ñii ay opérateur lañu dañuy wut xaalis waaye nag dafa am droit yoo xamante ni askan wi ñoo ko moom askan wi am nañu droit di woote ak di wuyu communication loolu ci seen droit la bokk am nañu droit aussi am information loolu ci seen ay droit la bokk léegi nag opérateur mënulaa jaay puce ba pare jaay la téléphone ba pare yow privé la nga mën a di woote di wuyu nga mën a ba nga mën a am problème mu communication nga mën a am problème mu aussi information man je pense que loolu war nañu dinaa saisir incha allahu le ministre Alioune Sall bi nga xamante ni moom la président dénk euh, ministre de télécommunication euh, incha allahu rabbi ñu taxaw ci dans les meilleurs délais loolu euh, moom pratiquement ñun ñoo ko dundandoo mi ngi nii situation la boo xamante ni bëriwul fu mu am ndax wax naa lii nga xamante ni moo am ngaay ba Thielmaxa moom moo amaat diggante ndànd ba kera ngay dem mbayeen ay rang-rang la ay xur euh, ay kamb ay montagne yoo xamante ni tey oto mën na cee am lu nekk ci jafe-jafe donc loolu laa ci woon doon sànni euh, di leen jaajëfal bu amul ay question